waaw comme nit ñi nit ñi yàgg a di ñuy laaj ay secret maanaam ci wàllu police maanaam wàllu yoon tey nag dañuy na indiloon secret bi nga xam ne pour mucc ci wàllu police la maanaam fekkee dafa am nit koo xam ne daf laa yóbbu ci maanaam ci wàllu yoon incha allahu secret bi boo ko jëf boo ko jëfandikoo yàlla dana coow loolu dafay fay du mujj fenn incha allahu waaye nag bala ñoo joxe secret bi ñu leen di fàttali rek ne leen ñun secret yi ñuy joxe luy fat ku ku dëng néew ci. waaw kon secret bi yow mi nga xam ne danga jël xaalis jàmbur lekk ko lii secret bi gën a wóor mooy nga fay ko bala ñu laa yóbbu ci yoon yow mi nga xam ne maanaam jubadi ak luubal moo la yóbbu ca yoon na nga xam ne moom ngay fexe ba jugee fa ci lu gaaw mooy nga bàyyi ko waaw loolu daal la wax ne danañ leen ko baaxee ndax léegoo léegi itam nit ñi dañuy def loo xam ne maanaam foofu alquran. sax mënu ci dara ndaxte tooñ ba noppi di jëfandikoo alxuraan ngir mucc loolu alxuraan du ànd ak yow ndax alxuraan ci dëgg rek la lay ànd yow mi nga xam ne nag nit daf laa jël tooñ la néewal la doole ëpp la doole wala mu ëpp la baraarlon tax mu yóbbu la ci yoon ngir néewal la doole ngir wan na la ne maanaam maamel nii maamel ni yow secret bi pour yow la boo ko jëfandikoo incha allahu bu nekkee ne kenn moo jugee foofu di ñibbi yow lay nekk bu nekkee ne kenn moo jugee foofu di ñibbi yow lay nekk boo ko jëfandikoo secret bi incha allah dem uy ji yoon du la du du du la toppee dara su nekkee ne dañ laa tooñ képp koo xam ne jëfandikoo nga secret bi incha allahu yow mi nga xam ne yaa jëfandikoo secret bi kala yóbbu sa yoon bu demee yaa koy yey ci wax yaa koy yey tamit ci ci jëf incha allahu ndax léegoo léeg yey nit ci ci ci maanaam kàddu maanaam am dëgg ci kaw nit dem ci kanam yoon taxul nga am dëgg am dëgg foofu. taxul nga am dëgg fofu ndax am na ci ñoo xamne ne léegoo-léeg nga am dëgg ci kanam nit waye ya toogee la ngay wax ak la am sax du doon ben manam mën nañ la man ci njabar wala tiit ñak mësta ñak mësa dem ci walu police dana tax ba do xam sax li ngay wax yow mi nga xamne nak jëfëndiko nga secret bi insha allahu rabbi képp ku la mëna yobbu ci yoon insha allahu da nga ñibsi siwaat da nga delluwaat ci sa kër insha allahu fa ngay fana insha allahu bu soobee yalla secret bi comme ni ngeen ko gisee ni da ngay bind lëkkum diinu kum lakkum diinikum waliya diin nga ubbi miim nga xam ne moom moom nga fay gis ni ñaari miim nga def sa tur ci kaw def turu ki nga xam ne moom moo la ci yoon nga def turam ci suuf miim yëpp noonu nga koy def lakkum diinikum waliya diin da koy bind juróom-ñaari yoon nga sangoo ko bala ngaa dem nga bindaat beneen fooy boo xam ne lakkum diinikum moom kese moom moo ci nekk nga bind sa tur ci ci kaw bind turu ka yóbbu ci yoon ci suuf ñaari miim yëpp noonu nga koy def soo noppee nga lem téere bi boo lemee téere bi da ut loo xam ne lu diis la nga sëf ko maanaam da nga koy sëf lu diis ngay ut yëkkati yëkkat jël téere bi teg ko yëkkati lu diis loolu teg ko incha allahu boo ko defee ba sangoo saafara bi dem incha allahu du mujj fenn bu soobee yàlla coow loolu nga xam ne moo waral ñu yóbbu la ci yoon loolu la ñu waxoon ne danañ leen ko séddoo ak yéen ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla defal leen jàmm defal ñu ko musal leen musal leen feesal seeni xol ak yàlla feesal suñuy xol itam ak yàlla feesal seeni poos ak suñuy poos yépp ak xàddina bam fees yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko yàlla def yaa rabbi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu